soxna yi toog leen bàyyi àlla mooy wax rek mu jeex ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndaxte bis bi bis bu am solo la maa ngi nuyu responsable des jeunes Moustapha Sylla maa ngi lay engagement ci ginnaaw soxna Awa Fall maa lay nuyu soxna Awa maa ngi lay nuyu bi nga nekk ci ginnaaw Baye Alla waaye góor boo gis am na jigéen ju am solo bi nekk ci ginnaaw soxna Aji Jaxate soxna Aji maa ngi sa taxawaay bi nga taxaw tax bàyyi la si la ginnaaw bu ma nee coordonnateur yëpp Mor Lo wax na ci seen tur maa ngi nuyu également Basirou Gueye Basirou Gueye nekk fi Aliou maa ngi koy nuyu nuyu la COJER nuyu la jeunesse bàyyi àll gàcce ngaaraama bàyyi àll si la bàyyi àll yaakaar naa ne taxaw nga fii taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la ndaxte lii caaxaan defu ko. liggéeyaloo parti bi man ko wax képp kuy liggéeyal parti nga teew fii ci bisu Baye Alla Sylla ndaxte ñëpp am ñëpp am kenn amul jot waaye lu mel nii Baye Alla jël mu nekk permanence bu nii mu defal ko parti bi woote mbooloo mu day nii ku ci ñëwul da ngaa nekk ci lu la neex wala nga nekk ci kenn xamul kon buñ bëggee ànd dañuy waxante dëgg bàyyi te bàyyi raayante bi maa la yaa ngi ñàkk sa alal yaa ngi ñàkk sa a ànd say mbokk def lii lii nag li koy wane mooy le candidat Amadou Ba na ñëpp jàpp le 25 février ñu fal suñu candidat Amadou Ba au premier tour ginnaaw bi ñu delloo ñu ko le président Macky ci mu am solo soxna yaay buy gàcce ngaa la li ma maa ngi gis sa taxawaay yaa ngi doxal yaa ngi doxal de nañ bàyyi critique yi critique yi amul njariñ bàyyi critique yi critique amul benn sens mënuma lim ñëpp na waaye sant yàlla sant leen di sant nag Serigne Touba bu baax di sant Serigne Mountakha bu baax sant naa ñi fi teew sama xol seet na naa wax ji jarul bari sant naa leen gërëm leen surtout ndawi Touba ndaw ñi nga xam ne tamit ñi ngi def sant naa leen gërëm nañ leen ndax liggéey bi jàpp nañ ci def nañ seen loxo di sant nag délégation yi mënut a ñàkk am na ñuy bokk ñu tudd leen beral leen loxo ndax du mën a ñàkk ndax ku dagg sa yitte jóge Ndakaaru ba fii ngir mbir mu bàyyi àlla mënuñu laa ñàkk sant Matar démb la jóge bii ci guddi wàññiku ñëwaat tey ngir mbir bi kon kooku ñu sant ko ndax nag jigéen jigéenu Benno Bokk Yaar Bokk Bokk Yaakaar yëpp parce que mënu ma leen a leen ku limit da yaakaar naa maam kenn moo jur ñi nga xam ni bokk nañ ci ñi sos yaakaar naa li ñu wax buñ ci ñoo war a doon di bii bi ñu ko waxee dañoo jàppale man leen moo nag bi dañ koo wut ngir waa département bi ñëpp duñu duñu ci beral kenn loxo képp ku ko soxla amul loo ciy fay kon kat dépa kat parrainage bi mi ngi nii pour bu ñu ca jógee ñu ngi soxna yaay buri di ko jox jërëm di ko yàlla jox muy suñu sëriñ ndax soxna suñu sëriñ suñu suñu sëriñ la kon ñi koy nuyu di ko beral loxoom man nag maa ngi nuyu ba tey li nga xam ne délégation yi ñëw moo ko yaakaar naa ni moo jël kàddu ci délégation yu bari koy nuyu mu joxal ñu lu nuyoo bi di fi teew jëpp wax ji daal jëru bari sama jigéen ñi nga xam ne ñoom laa àndal liggéey bi ah bu jum ñoom jafe naa ñoo yor organisation bi li ci war ñoom ñoo ko def ndax ma ne baax na gis nañ ni sonn lañ jéem waaye dañ ñoo bëgg na ko aw aw mooy awa mbaal ak ñi mu àndal liggéey ku lim jum kon jot may def bu dee gone yi góor maa ngi leen di lim di sant di leen gërëm yaakaar naa ba tey ku lim jum mosu passé la moo jiitu ca boppam ak gone yi mu àndal ak waa Mariam ku lim naa ci maa ngi sant yëpp gërëm gërëm na ma ñu bari ñi ku mënu maa lim jëmee parti bi waaye ñooñu ñëpp wax naa leen ndax gone yi fi teew bari na dañoo bëgg a taalal suñu loxo ñun ñëpp boo bëggee nit ñi di teew ñëpp en tout cas dëkk bi ñun nii ñun daal li ñu gëm bëgg ko mooy fexe li ñu jublu am doxante loxo ba mën a gañe li ñuy def ñi fi teew ne xëy dañoo nekkoon ci yeneen parti ñu ngi leen di gis ñi nga xam ne dañoo jóge Benno Bokk Yaakaar at yii ñu ngi leen di nuyu bàyyi ko ci daal bu ñu juum sant daal mu dëgër suñu sant daal leen li des na xam naa ne comme wax lu mën a demee demee damay bàyyi ku ko def te yor ko ñëw boo ñëwee fii sa dañ la fiy dalal bu ñu xaj yaa dimtin loolu mooy préparation yi bu ñu ci dellu gannaaw bu laajee dimbali dañ lay woo dimbali la dawal ca ndaje ma la waaw jërë ngeen jëfoon ñu ngi leen sant di sant ñi fi teew ñëpp am nañ fi nag ñu nga xam ne mbay tey moom moo ko ñaan tudd ma bëgg ba tàyyi ñëw ngir bokkal ñun rajo bi def na ci lépp ci war a def ñu ngi sant ñun xaajaloo ba pare gëmul moo tax dañuy taalal suñu loxo ñëpp ñi nekkoon fi nekk ak ñi nga xam ne dañ cee nekkoon ci fële yaa ngi ci te wane nañu suñu seen bopp ñi nga xam ne dañoo nekk feneen nekkuñu si woon nekkuñu fi nag dañuy maasa taalal ñëpp yéene daal liggéey liggéey boo xam ne dana ko bépp ba mu liñ jublu buñ ca yeggee rek mën a am loolu lañ jublu suñu woote bi tey bu duñu woote kenn keneen ku nekk kenn te gisoo sa bopp ñu ngi lay taalal sa bopp dinañu liggéey te fas nañ yéene am ndam incha allah